yàlla defal ko ci taraanga nag bi ko ci yàlla defalee taraanga mu jël yenente bi boole kook maysara mu dem jaay mhm. bi sayyiduna Muhammad demee keroog lu maysara daan jaay ci soixante-douze heures yenente bi da ko jaay ci benn bis macha allah am na ñoom dañ ko xool nag sopp ko rek jënd te bëggu ñëw jët <laughs> ay critères yu bari nekk ci moom maysara ñëw nettali ko Xadija sàkk la ci jigéen bu déggee ne diw ku baax la diw ku yiw la diw ku maandu la diw ku mën a yor jigéen la dagan na foofu jigéen doxaan góor. waaw ah, waaw nga njëkkantu ca. dem njëkkantu ca ndax lu baax dañ koy njëkkantu. Ah, su dee ay sànq duñu na ko. ne jigéen war naa tànn jëkkëram. Mhm. ngir ëllëg njabootam. ni jëkkër di tànnee soxnaam ngir ëllëg njabootam jigéen tamit noonu la war a tànnee jëkkëram. xanaa dañuy dégg critères yooyu yëpp xoolul aasam ndax aasam ak aasu yéen bi am na différence. différence de ans. mu labat yenent bi yenent bi ne ko dama am way jur boo fekk na bàyyam génn àdduna waaye mi ngi fekk bokk ak bàyyam bàyyi tax muy bàyyi tax olof di ko wax bàyyi tax mooy papa ya Alioune bi Abu Taalib mu ne ko bàyyi ma waxtaan ak sam papa bi dam wax ak papam papam ne ko ah, bu fekkee ne jikkoom doy na la nit moom bu la jikkoom ak diinam doyee rek bu la bu la bëggee mën ngeen a sëy yenent bi takk Xadija Xadija ne ko man sayiduna muhammad man Khadija maak sama alal ak lu ma am rek jox naa la yow yenent bi yaay chef boo ne waaw ma ne waaw boo ne déet ma ne déet te mu nekk lu raar te jigéen looloo war a nekk rôlam bis boo xasee am boroom kër li nekk sa cër mooy li nekk sa sañ-sañ mooy sa boroom kër na nekk sa lépp lu ko neex na la neex lu ko naqari na la naqari ay waawam di ca waaw ay déetam di ca te jaaga mii seede yooyu lañu seede ci moom mm-hmm. ndax nanguloon na alaaji coon déggaloon na ko nanguloon na ay mbokkam musuñoo xam musu musuñoo gis ci moom lu ko naqari ba mu wane ko publiquement lu ko mës a neex ak lu ko mës a naqari yépp nit du ko xam jigéen nag loolooy rël ndax imaam Ali bi ñu ko laajee ni ko piir jigéen nan la war a mel mm. dana ginnaaw bu amee ngërëmal boroomam di yàlla buy def lu neex yàlla na fexe ba fexe tamit am ngërëmal boroom kër ndax boo amee ngërëmu yàlla te amuloo sa ngërëmu boroom kër des na ndax yeneen ci beeko ila iza salatil maratu xamsaha wa shaamat shahraha wa xafisa farjaha wa ataa abdurjaha daxala jannata rabbiha ginnaaw bu yàlla nangoo jaamu yàlla sag jaamu yàlla mooy ngay julli mhm. di di def xeetu baax baax yëpp da fexe ba am sa ngërëmal jëkkër mhm. yeneen bi nee na yii yëpp bu dajee ci yow kenn mënut a fexe ba ëllëg yàlla du la dugal aljan kon moom yàlla ko yàlla boole ci ñi ñuy dem aljan imaam Aliou nag ginnaaw bi nga amee sa ngërëmal boroom def li nga xam na ni moom la la sant fexeel tamit ba am sa ngërëmal jëkkër est-ce que jëkkër kenn du ko cof mm. jëkkër sang la mhm. jëkkër sang la mhm. kenn du ko cof ñàkk goo cof googu moo tax Xadija bi mu jëlee yenente bi teg ko fi mu ko war a teg mhm. durant muy dund yépp yenente bi takkalu ko beneen wujj ko ngor ji nga ma ji fii yàllaa ngi may bàyyi sama bakkan man sang bii soxna du la fekk si waat ci biir kër gi kon diir muy dund yépp yenente bi jëlaatul beneen soxna teg ko ci kawam keroog bi nga xamee ne Xadija euh, euh, euh, génn na àdduna mm. ci la Sayyidina Muhammad doo ko takkaat yeneen soxla yi ngay dégg yëpp mais diinu Xadija mu ngi nekk ak moom ndax taraanga ji ko Xadija ji olof nee na mm. taraanga taraanga rek ko koy fay eh. ku la lebal taraanga fay ko taraanga al jazaa'ul ihsaan illa al-ihsaan la Alxuraan wax ku la defal lu rafet lu rafet rek nga ko war a fay. dëgg la ku la ji lu rafet lu rafet rek nga ko fay. Mhm. moo tax Xadiija diirub muy dund di ànd ak yenent bi yenent bi takkul beneen soxna teg ko ci kawam. ngir mbaaxam ngir woyofam ngir personnalité am ngir dignité am. te jigéen yii lañu koy nawee. dëgg la jigéen gannaaw diina. war naa am personnalité. Mhm. war naa am dignité. war naa am comportement baax ba ku ne ko jàkk xam ku baax la te jaaga li ñu gis ci moom mooy ku baax la. dëgg la macha ndax li ñu gis ci ay image am gis ko ci ay photos gis ko ci ay vidéo man li ma ci gën a remarqué mooy heure boo xamee ne xale yi bett nañ ko di ko filmer kaale gi lay njëkk a xëcc. bëri sutura. yiir yaram bi yëpp nga xam ne kii ku baax la. Mm-hmm. parce bu fekkoon ne beneen jigéen la. Euh, di nga ko dégg ci yeneen ndax léegi ak internet yi ni mu mel. Mm-hmm. Euh, rajo yi ni mu mel. Facebook bi ni mu mel télé yi ni mu mel bu fekkoon ne safaan lay dox mbaamu di ko wax tey di nga ko dégg ci yeneen ak yeneen ndax mbaax rek moo am solo jigéen nag mbaax mooy mm-hmm. fa tabaarakallaahu takk ndeeram jigéen takk ndeeram mooy mbaax ndax mooy loolu mooy yóbbalam mm-hmm. ndax ëllëg ah du aj du reer waaye mat naa sedd nag dëgg la macha allah su ko kon yàlla ko yàlla defal jéggal. amiin ci daraja yi sayyidina Muhammad. alayhi salaatu wa salaam. Mm-hmm. jërëjëf oustaz. Mm-hmm. oustaz waxtaan bi rafet na neex na. Euh, li ñu des ci waxtu sax bëreetul. Mm-hmm. bu ñu amee yeneen appel rek ñu jël leen le temps ñuy tàggatoo waaye maman Ndak lan nga ñu yóbbalante rek. ak lan ngay wax ci suñu yaay jikki na jëf caa tàggatoo. waaw li may kinne rek mooy ñu ñaanal ko yàlla yàlla bu ko yàlla topp dara yàlla mën na ko. ci barke yonent bi yal ko yàlla ati cër ma dem yàlla teg loxoom ci njabootam te may leen xolu muñ te dëgëral leen mhm. dafay ñaanal waali bu baax a baax a baax a baax doomu ñaay nag kenn du ñaanal mu rëy da nga koy ñaanal rek mu dund certain ndaw bàyyi yal na ko yàlla téel boppam mhm. bi ci des mooy nañu xool fan la ñuy jële jabar ak fu ñuy jële jëkkër kan mooy jabar ak kan mooy jëkkër ma ngi dan daan wax ni ku fortu jëkkër loo ca jur jël ko ah, fortu jëkkër loo ci jur jël ko. olof yooyu de xale yi ko. <laughs> koo dal daje rek sëy ak moom gis na ma gis naa ko neex na ma ànd ak moom. loolu bu njëkk da nga daan am ku lay bëgg. mu ne na def guru yow mu ñëw seen kër set si la say bokk xam ko laaj fu mu dëkk ak ku ko jur. xanaa lu la nit jur jur loo mën a mel mel mel dina am loo ca sàkk ca jikko ya mu waroon tànneef dañu tànnoon bu léegi ñoo jur référence. Mm-hmm. jigéen ñu tànnoon indi leen. ba léegi ñoo di référence li ma gën a ñor daal ma koy wax mooy éducation jigéen ñi kon éduque nos filles ñu yor doom yi que doom bu góor que doom bu jigéen parce que góor bu melul ni mu war a mel du denc jigéen bu baax te jigéen bu baax valeur la kooku mm-hmm. am na nga ko téye waaye jigéen ñi ku ciy sëy da góor góor góorlu sëy du fa dëgg la sëy du fa dëgg la loo ci def di a dajeeg moom loo def ci sëy rek di nga dox ba dajeeg moom. Mm-hmm. te nag la yow bi jekk. dum doom yaa màggee. atte leen te boo naan yow mi sama yaay baax na sa jarul di wax. Mm-hmm. doom ju màgg rek ñu xam ne sa yaay def. kon loolu mooy jeexatalu liggéey eh, bi ci bi ci des nag ëpp ci solo mooy ñu bàyyi xel suñu njaboot bàyyi xel suñu boroom kër yi te góor ñi xam ni ñooñu war a jàppale ñooñu war a yiir ñooñu war a protéger ñoo war a taxawu seen jabar jabar doo ko sànni ci àll ba rek xamoo lu muy dox mm. toogoo ci kër gi surveillé woo ci lu mu ne xamoo sa njaboot ci lan la nekk mais mën nga cee bañ am la neex mm-hmm. kon éducation bi yaay war a def góor ñee ci war a jàpp mais jigéen nag na xam ne moom moom doom mm-hmm. doom ndeyam dañu góorgóor bu baax a baax dëgg la dëgg la maman Ndak maman merci beaucoup yow it eh, suñu yaay ju baax nga mm-hmm. eh, tonton Youssou suñu yaay la boo xamante ni lii muy wax nii ñun loolu la ñuy xelal. laay dëgg la. bu ñu taseeg moom suba teel bu ñu taseeg moom ci escalier salle maquillage. Mm-hmm. ci xelal ñu ci teg ñu ci yoon rek la dëkk. Mm-hmm. moom it jigéen la boo xam te ne macha allah référence la ci mm-hmm. moom ay doomi mag la. waaw doomi ay mag la. te euh, doon doomi mag. yombul. ndax mag moo ëpp jot xale. sa maam Oumy njaay yàlla na ko yàlla yërëm taxaare ko àjjana dañ ko joxoon sa maam du jóob ma koddu te sam maam du jóob lañ ko njëkk jox sax mu génn àdduna ñu jox ko sa maam du jóob ma koddu mm. jamono jii mun nañu wax du jóob ma koddu ndaanaan la woon ndax ci groupe mbaboor la nekkoon di woy waaye boo fekkoon sa maam nu muy toppatoo mm-hmm. sa maam du jóob da ngay tudd yàlla te mu doon mag boo xamante ni tubaarkàlla euh, mag bu yiw la woon mm-hmm. waaye bu ko doon jox mu lekk sax moo koy defal boppam mm-hmm. te dem na ba ba ba ay atam bëri lool ah vraiment si nga jëre ngoon a jeey di sama ay maam yu baax moom mii suñu yaay ndaak ci ci meññant yooyu la ba pare di di di di yaay ju yiw waaw xam nga du dangay yaay rek yiw du force waaw dafa am loo xamante ni wax na ko léegi meññant ak ween dafa am solo léeg-léeg gis mag mhm. bu age te te du yiw mhm. donc euh, euh, mhm. du ko mag rek di yiw nit bu yiwee rek ci base bala donc base boobu mu wax ci suñu yaay Adja Kine Diouf ci ci ci boobu la nekk euh, Aziz maam Fama mi Père Mbaye Ngoné di wax léegi nekk nañu màkk ba yàgg. Mm-hmm. mu yàkkamti ñibbisi. wallaay ndax yaayam. ndax yaayam moo moo moo moo tawat. Mm-hmm. mu turandoo te Aziz. Aziz euh, du du du du xale. Mm-hmm. magum jëmm la bu neexoon mu ne yilif wees na ci moom. donc ci meññantu yooyu lañu. kon euh, yàlla nañu yàlla may jikko yu ñu amee. ndax ndax yombul. vraiment ñuy kontaan bu baax a baax a baax a baax ci Oustaz Bamba. gis-gis bi tey dafa ala daw me <laughs> per mbay ngoone géej naa yëngu sax waaye tey lu ko yëngal xamu ko <laughs> ndax moom na doon xaritam doon di ah. xaritam <laughs> mais xalaba bi kii dinañ ko def émission am ah, waaw waaw insha allah waaw kii foofu kii waxal waal yi mu jox ma benn concept jeex na pap demoo dema mais dama fay def histoire day day génn ci ko loolu maa yow ngay def bu la dara mel. maa na waxtaan waaw amul benn. dafa ànd ak. dafa ànd ak dafa ànd ak loolu. incha allah incha allah jërëjëf comme ci musique a nekk. soxna Fama daal jërëjëf di nuyu tamit di masawu waa kër Balla Dogo. ndax ki ne dafay dafay doom. dëgg la. Euh, suñu yaay Marème Mbaye. Marème Mbaye. ah ñu ngi koy maasaw bu baax a baax a baax a baax a baax xarigay euh, Abdou Khadr ah yaayu na bu jaañ ak sëy na bu yaay sëy na bu jaañ ak ngóone ah ñu ngi koy maasaw bu baax a baax a baax a baax a Gueye ki ne bu baax a baax au revoir ba